asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa leen nuyu di leen ziar di leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube la canal des ci seen programme comment gagner de l'argent sur youtube naka la ñuy gagner xaalis ci youtube vidéo yi koy defal di Pamour loo ñu koy defal en euh, ñu ñëw ci vidéo tey bi nag ma leen di wax chaîne bi chaîne bu bees bu ñu ubbi la euh, di fi def ay euh, ana vidéo yoo xam ne dañuy def ay analyse ci ay faits de société di fi def tam ay vidéo yoo xam ne day jëm ci wàllu motivation Euh, pour nit ñi gën ñaax nit ñi ñuy gën a sawar surtout jeunes yi ñuy gën a sawar ci li ñuy nekk kenn ku si nekk liggéey ba nga nekk nga koy gën a jox fulla ak fayda xam ni loo loo loo ji rek di nga ko góob boo ko joxee fulla ak fayda yàlla dina la si jàppale voilà. ak euh, vidéo yoo xam day ñëw ci wàllum entrepreneuriat maanaam nit ñi nan la ñuy mën a fexe di amal seen bopp seen liggéey bañ a toog rek di xaar gouvernement beeg état bi. ak tamit comme ni ñu la ko waxee ci li nga xam mooy wàllum business ci li nga xamante ni mooy business yëpp ci domaine yëpp nag voilà incha allah yooyu façon vidéo yooyu donc daal lañ fas yéene muy mu dugg fi ne peut-être dina laal ci société Sénégal li fiy xew wala mu nekk actualité am solo ñu ñëw dinañ si ñëw léeg-léeg di ci wax euh, suñu xalaat ci nga xam ne moo xew loolu mooy li nga xam ne moom mooy objectifu chaîne bi ñu tudde ko sama xalaat waa domaine yooyu yëpp daal lu si nekk bu dee actualité dañ ñëw wax si suñu xalaat bu dee ci wàllu motivation ñu wax ñun suñu gisinu àdduna lu muy nan la demee développement personnel même chose ma nit ki ni ngay def ba toujours ngay jéem a maanaam ngay jéem a màgg intérieurement waaw développement personnel du ngay suqaliku di am xaalis déedéet mais mooy ngay gën a nàmm sa xel sa xel di gën a di gën a ñaw maanaam ngay tamit gën a nekk nit koo xam ne da ngay gën a am fit da ngay gën a am courage da ngay gën a am motivation maanaam daal si si si domaine yëpp daal ngay ngay màgg di bañ a nekk xale rek ci domaine yëpp voilà loolu mooy si wàllum développement euh, personnel ba nga xamante ne daal lu baree bari ci àdduna mën na la bañ tee yëngal waaw développement personnel dafa am solo trop te dafa nekk loo xam lu ñuy négli lu ñuy négliger la te lu am solo la yooyu nag dinañ si ñëw ci chaîne bii di sama xalaat TV fekkee yaa ngi suivre nag Galsen Tube te abonné ko ci waaw lien bi suuf vidéo bi euh, lien bi ngay njëkk jot soo ko cliquer dina la yóbbu ci sama xalaat TV bi nga abonné ko nga abonné fa soo abonné ba pare nga activer cloche notification yi bu ko defee waaw vidéo yi ñu fay dugal di ko di nga ko mën di am heure bu ñu dugalee vidéo rek di nga ko mën am voilà vidéo analyse lañ fay def voilà léegi nag euh, vidéo tey bi dañ ñëw ci li nga xam mooy CTR CTR yi euh, YouTube dafa am modification yu mu ci def waaw parce que boo xoolee xaal ñu yokk fii tuuti pour mu ñu yokk taayu écran bi tuuti euh, pour bu ñu tegee vidéo yi mu gën a feeñ voilà voilà léegi boo duggee ci téléphone fii ngay xool vidéo yi nag boo duggee ci téléphone ci téléphone di défilé léegi xam nga YouTube da ko def loo xam ni sooy sooy défilé dugg ci YouTube bi di défilé soo ñëwee ba benn vidéo ñëw sa digg écran bi vidéo bi day commencé di dawal boppam sans nga cliqué ko mais du wax day daw di daw di daw ngay xool soo bàyyee mën na daw ba jeex xam nga xam nga YouTube dafa doon def rek yow yow booy nekkee ni ci sa téléphone par exemple di xool wala ci YouTube bi par su ma gisee vidéo bii ma bëgg xam ci lan lay wax miniature bi kese laa gis il faut ma cliquer ko lay wax su ma bëggee seetaan vidéo xalaat TV par exemple tey il faut ko pour xam ci lan mooy génn lay wax su ma intéressul ma tëj su ma bëggee seetaan beneen vidéo et cetera léegi YouTube def nag léegi lecture yi nga xam ni bu dee ordinateur da teg souris bi soo tegee souris bi nii rek comme vidéo Mollah Morgun bii soo tegee souris rek gis nga vidéo bi day daw nga xool su dee waa daal jàpp nga li xaw na la intéressé nga cliqué ko nag soog a seetaan su la intéressé nga jàll ci beneen comprendre nga voilà bi direct la dawul waaw soo jàll nga jàll ci beneen comme nii voilà nga xool kenn mu dawal la mën nga ko teg nii mu daw ba bi jeex su dee téléphone bi comprendre nga bu dee téléphone nag da nga koy pousse rek bu egsee juste su digg écran bi rek vidéo bi day déclenché commencé daw su la intéressé nga bës nag mu nekk vidéo ngay seetaan di dégg su la intéressé wul nga continuer défilé nga am léegi mën ngay gis continuer yi nekk biir vidéo bi te doo cliquer vidéo na ko def xaw na yàgg tuuti léegi da koo bëgg a yokk nag ci li nga mooy CTR bi ñu dem na xool yi loolu voilà ñu cliquer ñu wàññiwaat écran bi fii pour mu bañ voilà ñu dem cliquer dem YouTube Studio YouTube Studio enquête non lii moom dama ko bàyyee tontu jour mañ mu defee. bañ ma joxee règle de la euh, euh, kii avertissement règle de la communauté bi ci vidéo boobu tegul ci yoon boobu YouTube defoon ma bind leen ñu bañ laa bàyyee répondre lii dama doon jël sama temps di ko répondre da lay diir vingt minutes ñu lay poser ay question ngay répondre ñu ne moom la ñu améliorer YouTube YouTube mais boobu laa ci bàyyee contre dootuma ci contribuer quoi loolu laa décidé <laughs> entre parenthèse léegi fii ngay ñëw analytics voilà moo xam mu def analytics moo xam mu def euh, données lu mu munti nekk rek analytics ngay ñëw voilà boo ñëwee ci sa analytics fii voilà léegi boo xoolee YouTube mu ngi nii message bi boo ñu bëri gis nañ ko boo duggee sa analytics rek di nga ko gis voilà mu defal la fi les vues issues de la lecture automatique dans le flux d'accueil seron traité comme des vues lors du calcule du CTR cela modifiera peut-être la valeur de votre CTR léegi CTR bi nga xamante ni maanaam moom moo doon nekk maanaam euh, euh, taux de taux de taux de taux de clic yi ngay am ci nombre impression yi léegi YouTube da ciy boole li nga xamante ni moom mooy. lecture automatique yooyu nit ñooy bàyyi sa vidéo mu egg si écran bi ñu bàyyi ko muy daw donte vidéo waxul YouTube da koy considérer comme ku seetaan sa vidéo léegi YouTube doonu ko considérer comme ku seetaan sa vidéo lii nag dina am côté naa dina am côté boo que comme nit ki cliqué wu ko seetaan ko rek YouTube waru ko woon boole ci maanaam seet yi nga xam ne nit ñi seetaan nañ ko comprendre parce que lu mu wax dafa dafa yomb li jëm ci flux accueil bi dina ko traité comme des vues dina ko traité comme nit ki bu cliqué seetaan moom lay yemale te loolu xam nga nit ki cliqué wu ko seetaan ñoom defaguñ loolu publicité di ci daw loolu mun na biaiser tuuti yow nga gis nombre vues yu bëri yu la YouTube defaral nga gis ba pare YouTube sa montant publicité yi mel ni dafay gën a wàcc fekk non non YouTube moo la ci yokkal ay vie yoo xam ne daawu ci yokk ñu bëri nañ ko bàyyi xel bu baax a baax lii lu am ay décision bu ñu jël la ñoom mais bu am solo la boo xam ni ci ni ngay gisee léegi li nga xamante ni mooy sa nombre de vie yi nga am ak revenu yi nga généré loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que CTR bi dafay modifié lu bëree bëri bëri bëri ci li nga xamante ni moom mooy euh, si si revenu yi dina modifié maanaam rapport bi mu lay jox ci revenu yi ak rapport bi mu lay jox ci maanaam li nga am mooy taux de clic bi comprendre nga léegi bu ñëwee fii ñu def euh, couverture bu ñëwee couverture voilà wàcc ci suuf fii la ñuy defal li nga xam ne mooy rapport bi jëm ci ci wàllum CTR yi voilà. mu defal ñu fi impression et manière dont elles ont contribué à la durée de visionnage maanaam nombre yoon yi nga xam ne YouTube dina ko wane sa vidéo maanaam nombre yoon yooyu YouTube di wane sa vidéo mooy lan. mooy képp ku dugg ci YouTube rek dugg ci accueil YouTube am di défilé vidéo yooyu muy gis ñuy feeñ te moom demandé wu leen YouTube moo ko fay indi loolu mooy ay impression mooy YouTube sa yi muy jël di la defal promotion gratuitement comprendre comme bi ma cliqué sànq ci accueil bi vidéo xalaat TV yooyu ñëw fa noonu loolu xam nga xalaat TV nekkul moo ko fa indi nekkul moo demandé mu ñëw fa YouTube moo ko fa indi def ko defal ko promotion comprendre nga léeg-léeg mën na ko indi parce que chaîne bi dafa abonné si yow ko indi parce que par di suivre lu bëri say vidéo su xalaat TV dugal vidéo mu indil la ko mën na ko indi fekk abonné mais parce que dafa gis vidéo boobu dafa am view yu bëree bëree bëri xalaat TV dugal na vidéo vidéo bi bi am na solo te euh, parce que ni ko seetaan bari nañ te ñi ko seetaan ñëpp dañ koo cliquer seetaan ko moom jeex ce qui fait YouTube da wan ñu ñu gën a bëri loolu mooy promotion bi YouTube di defar chaîne gratuitement moo tax soo mënee fexe ba say vidéo nit ñi bu ko cliquer di ko seetaan du début à fin YouTube day jàpp ni vidéo bi dafay téye nit ci YouTube léegi bataille bi entre YouTube Facebook TikTok foofu kese la mooy point point commun bi bi ñu bokkule mooy ñoom ñëpp dañoo bëgg nit ñi di toog seen plateforme léegi képp kuy defar contenu buy tax nit ñi toog ci bi YouTube daf lay defal promotion gratuitement wan ko ñu gën a bëri pour ñooñ di gën a seetaan ñiy gën a toog ci YouTube bañ di dem ci yeneen réseau yi comprendre nga loolu tax YouTube promotion boobu mu koy defalaate képp koo xam ne sa vidéo day am ay vues te ku ko seetaan seetaan ko moom jeex rek vidéo bi da ngay si day gaaw a day gaaw a développé voilà léegi nag daay xool nooy joué ci loolu nan ngay defee ba say vidéo nit ñi di ko seetaan A ba Z foofu la Ali Kale ji nekk voilà léegi la ñu defal bi mu ñu defalee impression yi deux cent cinquante quatre mille six cent impression maanaam deux cent cinquante quatre mille six cent fois la YouTube wane veno vidéo bi ci ay nit yuy cliquer ci diggante maanaam 17 mars ba 13 avril. loolu bi mu ko defee nag maanaam boo xoolee fi defal nañu 66 virgule 1 pour cent yoo xam ni recommandation YouTube la voilà nekkul maam ñu abonné nekkul ñu ñu aimé nekkul aimé YouTube directement mooy recommander sa chaîne comprendre nga loolu am na solo 66 pour cent fi mu defal nañ taux de léegi YouTube. bi mu jëlee chaîne bi defal ko promotion deux cent cinquante quatre mille six cent fois la ko wane ci ay nit ñoo xam ñu ngi ci YouTube di manipuler vidéo bi génnaale ay vidéo chaîne bi génnaale bopp parce que li concerné wul benn vidéo kese quoi mi ngi concerné période bi vidéo yi nekk yi génn ci période boobu ci ay recommandation boo xoolee ñi ko ñi nga xam ne gis nañ loolu défilé gis vidéo bi rek affiche bi romb ñu cliqué moo xam vidéo bu mu munti doon ci vidéo yi taux bi sept euh, sept virgule trois pour cent la te YouTube lu mu wax mooy taux bu gën a tuuti bu gën a tuuti boo xam ne seen war na ko am ci ay recommanda ci ci ay clic ci ay recommandation mooy ci ay impression moom mooy cinq pour cent mooy minimum bu wàccee cinq pour cent rek kon sa qualité vidéo jàppal ni baaxul bu fekkee nekk na 5 5 pour cent rond am nga moyenne bu yéegee nag di dem 5 pour cent jëm kaw gën naa baax mais su fekkee yow say recommandation YouTube bu la wanelee téeméeri téeméeri nit. ñi koy cliquer duñ mat cinq kon contenu yi am na problème wala say miniature am problème parce que miniature ak titre yi mooy ëpp li tax nit ñi cliquer contenu bi mooy tax nit ñi toog ci vidéo bi voilà nga bàyyi ko xel tam loolu paramètres yu am solo la. nii mooy li nga xamante ni moom la YouTube modifié ci li nga xamante ni moom mooy CTR bi mooy message bi ñu defar ci kaw maanaam léegi impression yi bu la ko defalee ba pare. dala daan defal rek ñi cliqué ci vidéo yi kase kase kase kase kase loolu la daan indil fii defal la nombre vie léegi nag fii nag vie la fiy defal yemalatu ko ci nombre personnes yi cliqué kese seetaan vidéo bi mais ñi nga xam ne teg nañ ci kaw vidéo bi seen souris vidéo bi du daw noonu comme ni ma la woon sànq wala bu dee téléphone ñi nga xam ne indi nañ défilé nañ ba ci benn vidéo ñu arrêté vidéo bi jékki-jékki di dawal boppam noonu YouTube da koy boole ci ay vues loolu nag dina modifier lu bëree bëri ci li nga mooy YouTube parce que dina la indil vues yu bëree bëree te peut nga am revenu yi nga daan am ba léegi si kanam tuuti loolu lay jur ci chaîne yi chaîne boo xam ne par exemple daana am par exemple 500000 vues mënoon quatre cent quatre à peu près cinq cent mille vues bu dee Sénégal après mën nga ci gagné ay deux cent cinquante ba trois cent à peu près nga exemple ñu jël exemple simple nga am cinq cent mille vues mënoon ci am deux cent cinquante mille léegi mën nga mën na la defal par exemple nga am nga am sept cent ba pare sept cent mille vues ba continuer am deux cent cinquante mille lu tax parce que da la cay yokkal yeneen vues te vues yooyu ay publicité da aussi ngeen bàyyi ngeen bàyyi ko xel loolu nag la maanaam. maanaam li nga xamante mooy analytics yi ak li nga xamante ne moom mooy statistiques yi ngay gis ci YouTube selon nombre vie ngay am ak lim lay générer mën nga gis nombre vie yokk te nga gis montant bi nga doon gagné nga gagné ko ba léegi nga nga dugg ci analytics yi xool YouTube lan la la ci yokkal bu la ci yokkalee euh, vue yi nga xamante ni indiwuñ publicité day gonfle sa ay vue te fekk say revenu du yokk parce que view yooyu ay publicité dugg ci waaw loolu mooy lu bees li nga xam ni YouTube bi ci li nga xam ni mooy analytics bi pour li nga xamante ni mooy euh, vidéo yi ñuy def lecture automatique voilà message bi daal bu ngeen ko gisee ci kaw loolu la léegi nag comme lire nañ ko expliquer leen ko léegi mën nañ ko dindi fii cliquer ignorer message bi dem questionnaire bi tam comme répondre wuñ ko mën nañ def ignorer voilà ñaar yooyu boo ko gisee mën nga ko def cliquer ignorer mu dem ay notification la voilà lii mooy li nga xam ne vidéo tey bi indi loolu nañ leen ko lu jëm ci wàllum CTR yi kon ñu ngi leen jox rendez bi di ñëw insha allah